bon en fait d'abord pour la pour la mendicité il faut comprendre deux choses mhm. que il y a y a ceux qui sont dans la rue Nous avons maintenu. ni opération bi euh, ministère de la femme commencé de la famille euh, ci à l'époque nga avons direction de la protection de l'enfant mon comportement. nga xamante ni jamono jooju kii moo fa nekkoon Ñoxobaay Diouf de Mbaaw euh, boobu les enfants talibés ak enfants yi nekk ci mbedd mi di di yalwaan te ñuy wax ne ci daara yi lañ nekk boobu lañ doon ramas doon yóbbu am na luñ ci def jot a def mais après bi fa Ñoxobaay Diouf euh, jugee donc dangay gis ne mbir mi dafa dafa dafa dafa échoué dafa dafa dafa échouaat yow yaa ngi ramas ay talibé sa buntu direction talibé yaa ngi fa fees fa dell c'est un problème

avion bi nga xamante ni ma dem nañu euh, libi jël ay nit bi libi di di tàkk jël ay nit yëpp leen ci avion ñëw indi leen Dakar pour pour rawale leen parce que jamono jooju dëkk bi dafa dafa dafa dafa nekkoon ci xeex bu metti donc ay jeunes réfugiés ñu ci bari ay réfugiés lañ foofu la phénomène ni njëkk a commencé ñu ci bari ci ñi njëkkoon doon yalwaan ci mbedd yi nga xamante ni c'est une famille buy toog ci mbedd mi xale yi di di di di di ñëw di la jàpp bolen baye xel ci ñi ko njëkk def da ngay gis né ay xalé ay nar lañu ay libyen la doon si vous vous rappelez donc fofu le phénomène bi commencé nga gis nak libyens yi ñëw après guinéen yi ñëw malien yi ñëw Niger wa Niger fees fi delu aussi da fay wone euh, manque de stabilité bi nga xamante mom mo nekk suñu suñuy région parce que ñi nekk ci mbéd mi bo compté ñëpp 99% yi ils sont des des pays ils sont issus des pays nga xamante euh dafa am dafa am dafa am guerre wala dafa am xeex mom motax ñu daw ñëw fi maintenant comment faire pour pour pour encadrer ça pour que ñi nga xamante ñom ñoy ñooy ci dëkk yi nga xamante dëkk yi dafa dafa amul stabilité bu ñëwé essaye de créer comme la Côte d'Ivoire Vous nga xamante Burkina dafa taxaw carrément euh, indexé euh, le le le le président muni Côte d'Ivoire nous, ñooy bëgg déstabiliser alors quand Côte d'Ivoire dafa am un centre de réfugiés vous nga xamante ni du Burkina du Mali du Niger dañ leen di accueillir pour nous nekk donc et pourtant nous avons dit wax ne Côte d'Ivoire moom moo bëgg déstabiliser seen réew donc il va falloir que le Sénégal tend vers ça nous créer un centre, nous nga c'est c'est c'est pour accueillir les réfugiés parce que ñu nekk ci yeneen dëkk yi par exemple ñu nekk Mali nga xamante ni seen dëkk ñoom gis nañ ne mënuñ faa am jàmm ñëw dugg ci Sénégal il faut nous am fu leen fu au état Sénégal Sénégal Sénégal dugal maintenant il va falloir que état du Sénégal def ci def ci jéego bu mat mu am anarchie ci mbedd mi c'est parce que ñi ñi jëlé bitim réew di leen indi bu ñëwee rek dañ leen di sanni ci ci ci ci ci mbedd mi je pense que lolu état bi war na ci def liggéey liggéey bu muccu ay et que la mendicité aussi euh, non seulement même bu dul ay côté insécurité ak ni ñu lay sonalé ci mbedd mi mais dafa dafa rafetul ci xar kanamu capitalu Sénégal ci capital bi ci décoru Sénégal dafa rafetul mais bu ngeen di am habitude du dox la nuit da di guen mais mbedd mi day fess del 3h 4h du matin dafa am ño xamanteni ci mbedd mi lañ def sen kër dañuy créer sen bar dañuy dem ci ben rond point wala ben ki voilà créer sen bar fo fa la ñuy faral ci kaw canal bi waaw fajar ñu ñu ñu lemaat sen bar après dem dem nekkaat ci ci leneen am ñoo xam ne amuñu fu nekk so leen jëlé ci mbedd mi il faut nga wut leen fo leen duggal il faut nga jox leen ñu lek jox leen ñu nan donc lolu c'est un ensemble de mesures bu nga xamanteni d'accord ndimbal kay xanaa di nga établir li nga xamante ne mooy say plan balaa ngay jël yónni ay avion ñuy jël di dem di jëli ji ay ay ay ay nit. non mënoo koo bañ. ay réfugiés même boo jëliwul ay avion même boo jëlul ay avion jëli leen indi leen. c'est na ñu xamante ni ci frontière yi la ñuy jaar am ñoo xam ne ci suuf si la ñuy jaar dañuy ñëw buñ ñëwee nekk ci mbedd yi.

dañ naan la ci élection yi dafa am ay ay ay ay ay ñu ñu fa ñëwoon ci ñoom ne leen cité bii Marème Faye Sall ko moom. Mm. bu élection yi passé su Amadou Ba gagné Marème Faye Sall daf koy maye daf koy daf koy joxe kër. Mm. léegi ñoom ñu jàpp ne ba dem nañ ba tuddee ko cité Marème Faye Sall ñu jàpp ne cité bi Marème fay sàll moo ko moom. maintenant bi affaire yi affaire yi kii ñoom it ñu dégg ci koo xamante ni nee nañ jomaay nee na. dafay joxe day joxe ba day maye ay kër. est-ce que comprendre c'est-à-dire euh, ñoom aussi ñoom it ñu ñëw rek nous nu kër këroo et puis logement sociaux yi nga xamante ni état bu Sénégal doon na ko def amul benn amul benn suivi amul benn information bu nga xamante ni askan ce aussi am nañ ko dégg naa ne daal ne état bu Sénégal mu ngi defar ay logements sociaux alors que état bu Sénégal logements sociaux yi muy defar sax amul les moyens de cette de ce projet là il a fallu mu en un particulier bu tabax cité mu mu mu loué ak partenariat pour que kooku mën ko jox ay cœur. vous voyez mais ce qui est dangereux moi, il faut toujours éviter di di di di di di di di def ay discours populiste parce que askan wi fi ñu lay xaar

maanaam li gën a indi bi sax xam nga lan la mooy descente bi président de la république def descente mbuurkaat mais c' est pas possible benn nit di yor plus de deux cent parcelle alors que am na ñoo xam ne ñu ngi bëgg am fu ñu dëkk mënuñu koo am foofu la ñu bëri jëlee euh, jëlee ci discours ne jomaay nee na dafay maye kër yi kër yi comme Macky Sall moo ko moomoon Macky Sall wàcc na léegi jomaay daf koy maye. C'est-à-dire, euh, il faut, c'est très dangereux. Il faut tenir le langage de vérité à la population sénégalaise. Nous savons. Déjà, il y a des gens qui que des investir tabax ay dañuy dëkk dafa sénégalais nan lay xalaatee yow. loolu lan la mën a nekkee. non gis ku est-ce que ñii ça va am na ci koo xamante ne dama dégg non am na ci koo xam ne dama koo dégg mu ni moom moom liggéey na moom moom euh, voilà victime la ci ñi nga xamante ni ñoom lañu délogé ci ci terre bi ci terre bi. Mm. bon nee na d'après ci ay a ñaajam moom fayuñu ko li ñu ko waroon a fay. ça fait ba de dafay dafay wër di di di di louer bu nekkee fii mënul am kër te këram mu ngi woon ci euh, ci bi fi mu kii foofu lañ ko te joxuñu ko xaalis maintenant nag moom am na problème fu mu dëkk moo tax bi mu déggee affaire bi daa ñëw ci fajar ci guddi yi dajji affaire bi dëkk fa ak njabootam vous vous rendez compte donc am na loo xamante ne aussi sawaay xel xel sax na waru ko waru ko waru ko waru ko pour la petite histoire le TR man couvrir naa seen point de yu bëree bëri pour la plupart dañu la joxoon xaalis. waaw. man ci ci cas yu noonu man j'aurais préféré ñu tabaxal leen xam ne doo doo doo joxe liquide. parce que ngay jox xaalis. saa attention mën na ci bañ dem tabax yi de. non du ci tabax. waaw loolu ma problème du ci tabax dafay lekk. dañ dañ jël xaalis bi ñu ci bëri xëy na euh, tabaxuñ ci luye nañ ci luye en tout cas luye nañ ci di des ñu ñu faje ko seen soxla. Mm. bu xaalis bi. xaalis bi sëy mais en tout cas. ñu bare bari nag moom vraiment euh, mbir mi xawoon na am solution. Mhm. voilà mu ngi noonu c'est un phénomène boo xamante ni am na il faudrait que quand même euh, qu'on puisse tenir les bons discours parce que da ngay gis sax ñu ñëw ne la.